بأمتي واستر لها أنا عربي الله اغفر لأمته وارحم بأمتي واستر لها واجبر ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واستر ربي الله الحمد لله ذي تيسير الله ما دار يالله الله صل صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يالله يالله يا الله تعظل صلوات الحصة الحكماء أهل المحبة أهل الله الله صلي صلاة وتسليما على قمر من نور كل خير أمتي واستر لها واسترا على ربي الله الحمد لله ذي تيسير الله نظم دراري له يالله يالله يالله صلي صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يالله يالله تعظل صلاه حصت الحكماء أهل المحبة أهل الله يا الله صلي صلاة وتسليما على قمر من نور كل خلق يا الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داراري له يا الله يا الله يا الله صل صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يا الله يا الله صلوات الحصة الحكماء أهل المحبة أهل الله يا الله صلي صلاة وتسليما على قمر من نور قلبي الأهوال يا الله أمتي واستر لها واستر ربي الله الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داراري له يا الله يا الله الله صل صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يا الله يا صلوات الحق نيو امتي مبتل امتي كيس داخلوي بتل كلو ياكار انتم موم لي دون موم لي Eh, comme que yàlla def nag lu ko neex ñu sant yàlla rek yàlla def waaw loolu la ñuy def ñu ngi sant yàlla rek ci mbir yàlla ndax yàlla dogal lii moo war a am eh, yàlla na ko yàlla jégal te yërëm ko waaw eh, Cheikh Tidiane Sy nag moom li ma xam dafa bari parce que dañoo xaw a maati woon ay jamono Cheikh Tidiane Sy nit ku baax la woon nu ko amoon pas-pas la woon nit ku amoon yéene la woon ñun moo nekkoon suñu sëriñ ñoo daa ànd ak moom ba ni mu nekk woon ci affaire politique bi yëpp ñoo Cheikh Tidiane Sy la woon waaw ñu daan fekk Tëngéej ñu ànd ak ma ci waa Tëngéej di dama ko ñëw ba yàlla dogal yàlla dogal kon nag yàlla na leen yàlla defal li bëgg yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla yërëm ci barka yoon bi lii mooy dogal yàlla nangu noonu ko nag xam naa dogal yàlla la. Pape Malick. tàng ba muy sol béere. te daan ñëw suñu kër kees marché Sam di ànd ak sama nijaay di xëy di buy dem cinéma. day jaar sa kër gi ñoo koy defal reer mooy waaw sëriñ Cheikh nag mooy sama soppe ah sëriñ nga kër Babacar waañu soxna Umma maa ñu nga woon sa waañ nekk fa soxna Fabie Gueye moo doon jabar Ibrahima Doucouré ànd Ibrahima Doucouré ànd Cheikh Tidiane Sy ñu daay daayira ak bàyyi xalif barka démb laa sotti seen photo boobu maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na guddal fan yi si des sëriñ Moustapha nag maa ngi koy ñaanal sa kaw lii papaam mënoon yàlla na dem la ko daraja yoon jërëjëf yàlla moom lu mu xas def rek boo dee nit ku baax rek da nga koy gëm xam ne lii yàlla moo ko dogal nga nangu ko nangu yàlla nag boo ko nanguwul itam eh, da ngay chance bopp rek nangu ko yàlla dogal yàlla boo ko nangoo rek sa lépp eh, day yomb yeneen yàlla jégal ñun ñu ko jógee ba Dakar ñu ngi ñëw fii eh, ndax yàlla ah, sëñ bi suñu xaar la woon nag. papa lan nga ñu fàttali lan nga mën a fàttaliku ci moom lan nga fàttaliku ci moom. ci moom ci wala Cheikh Tidiane. ñoom ñaan ñëpp fi Pape Malick xamee naa ne ba mu nekk xale ba tey. waxam lan nga fàttaliku ci moom. ah ba bu ko démboo Ndiaye li ci feebar bi sax loolu sax ah, ñëpp xam dégg nañu ko. waaw fàttaliku ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw mooy loolu rek. bi mu naan affaire bi mosuma tiit waaye ren tiit naa ci feebar bi yàgg bi mu ko xay yàggul waaw bu ñu koy xëy yàggul waaw bu loolu yàggul mm-hmm. feebar bi dal ko noonu mosuma tiit ci feebar mais bii tiit naa ci kon nag yal na ko ci yàlla yërëm ci barke yonent bi jërëjëf jëf gaa ñi tubarkàlla